ta sànq am na lu bàjjan Anta Fall wax lu am solo ndax dafa am jigéen lu mu def ci biir société bi te loolu mu def àdduna bépp di ko waxtaanee ma am fu ma leen contredire ñoom man bàjjan am na fu ma ko contre. mooy borom peel bi. waaw. ki doon am na fu ma contre. xam nga lu tax ma fu ma contre. man des fois damay xool le nëhë di problème. de leen xool le nëhë. jigéen sëy rek la bëgg. Mm. ndax dangay am sa jëkkër amul doole ngeen ànd nga jël sa doole ak sa lépp di yenu di jaay di am lu la say càmmiñ di may ngay dam sagal sa bopp di sagal sa jëkkër te it nag la tax ma wax loolu dafa am lu ma ca xam li ma ca xam dafa leer nañ ndaw soosu ngeen di gis dafa sonn ci sëyam ba jëkkër ji amul dara man maa ko wax man Adja Fall te dama cee am lu leer vocal yaa ngi nii ak man xawma ci nëbbu waaw mais loolu est-ce que war na tax këf ko. dama koy këf man ànd naa ci li nga wax. nit da kooku dafa sonn. mais du raison. benn déglu dama yeggali ñaareel ba. xoolal dama dama sonn. du tax dafa tooñat bi moom dañ ko tooñ mais dafa tooñat bi. waa xaaral moom moo feeñ la. da ngaa xam moo ko joxoon jëkkëram mu jënd ko. moom muñ ko xoolal bu ma la suudee sa lépp laay suud. ma ne Badiane xamul ndax moom ndaw si moo liggéey meuble ya. jigéen ñaa ngi teggi tonton yi di jënd ay chambre a coucher di sagal seen bopp di dem ci maani waaw mais da ngaa xam la mu toj ndax moo ko jënd arrêté leen arrêté leen mais doo jënd di ko yàq nag da ajaa man du jënd sama yëf ba pare di ko yàq waa ba tey mais mère dama la a fii bàyyi ana mère ku jom bu toog lan la ma bàyyi lu olof Njaay wax ci mer. ku mer ànd ak sago. noonu borom la. bàjjan noonu borom la. déedéet boo meree ma ni ma ni am na ñoo xam ne bu ñu meree dañuy yàq yàggul dara gis nga góor toppandoo ko moom it di yàq. waaw aycale waxal ci loolu. dana loolu moo ko jënd moom tam. waaw léegi ku jigéen ki da ngeen xam ndax moo jënd loolu ba pare mu dem jël xale bu ndaw. boo xam ni. tag ko ba pare ñëw ca moom naan ko sa mindaan mi dina sëy si. maa xam lan na di problème man. mindaanam la tag dafa ñëw ci jabar ji ne ko sa mbindaan sëy si na vocal yaa ngi ak man ñun ñooy loolu raison la ba tax pour mu yaa xam lu ne la ñu xam àndal jigéen laa àndal mais yàq bi laa àndul. bàjjan maa ko wax te ay fo. non man man it yàq bi man dama jël sama bopp rek teg ko bu doon man la du ma yàq damay dem la xoolal sama alal la naa la bàyyi yàq moom ku ñàkk jom bu ñëwee. bàjjan mero bàjjan ku mer yàq du ma sama alal ba pare beneen jigéen ñëw di ci tëdd loolu duma ko nangu man ñi ànd ak ñi ànd ku góor ki ànduma ak ku góor man ku jigéen ki laa àndal na ah, yàq yàqal tojal rajo xel maa ko wax. Eh, yàqal baaxul. ma ne man yàq wax li may njëkk a def mooy xàcc toj sama téléphone. kon nag yàqkat nga man ànduma ak koy yàq. kenn dina jël sa alal. déggoo ma de Badiane eh, arrêté. mais génnal di Badiane Badiane sëy dafa métti. ah ah ah oh. oh dëggal lii. waaw. waaw léegi. góor gi amul droit am ñeenti jabar. bàjjan bàjjan mais moom lu mu sañee. may may leen ma ma wax ko. lan la signé bàjjan maa fekkale police ba. ah moo ko def waaw kay. waa léegi kaay kaay ma ne bàjjan xam nga fekke woo maa fekkale police bëgg. xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi dafa sëy ba ngeer jël alalam yëpp jàppale jëkkëram. maa la maa la wax lii am na ci njaboot. waaw yàqal na boppam ndax njabootam way bi day continuer. waaw waaw ma ne eh bàjjan doo jóg. bàjjan gi ne way day dëgg yaa wax